Yes TV, la première scène soir. est TV. ñoo ngi nuyu ñëpp di leen sant euh, di leen ziar man maa ngi tudd madame Sène ñu may wax Sabel Diakhaté ma nekk euh, conseillère au niveau de la mairie ville chargée de la commission santé hygiène ak salubrité waaw ñu ñëwoon tey nag doon euh, salkasi le premier bébé de l'année euh, di leen indaaleel nuyoo docteur Babacar Diop. Mm-hmm. Euh, tey ngeen ñëw fii ci turu mairie bi ngir indi euh, sargal comme ni ko waxee lan moo ngeen yëg tey ngeen ñëw surtout fekk fii ñaari bébé yoo xamante ni bii ñu ngi judd ci même heure bi. waaw loolu dañ ciy sant suñu borom lu bari ndax nous sommes des mamans fii jaar nañ fi te ku nekk xam na ni doom su juddoo day indaale wërsëgam. ñi ñaan yàlla rek liñ fi indi di ko jox ci bébé bi na suñu borom def ñu murloko ko def yaayam ak papam gudd fan ñu amaat ci beneen sensation bo xamante ni moo gën a neex parce que dañoo ñëw fekk ba papa bébé bi nekk conseiller mairie ville bu Thiès donc loolu aussi nekk na bu am solo ci ñun euh, ñu ngi koy sargal di ñaan suñu borom dom ji yàlla na mag ba tekki ba ndeyam ak baayam fekk njëriñam voilà fi ñaari bébé ñoo fi am tey bu góor ak bu jigéen. wax nañ leen wax nañ ñu ni ñaari bébé fi am bu góor ak bu jigéen mais yàlla dafa def ñun bu góor bi suñu bébé la. Mhm. ndax suñu con naataango conseiller. Mhm. suñu collègue moo nekk papay bébé bi. est-ce am na yeneen jéego yu muy def si yeneen hôpital wala waaw euh, docteur moom ku ko xam-xam ni euh, lu muy liggéey rek da ciy boole santé santé dafa nekk benn ci ay priorité mhm. euh, def na ay dons yoo xamante ni sax. peut-être que les visible euh, au niveau de la de la ville mais pour nek jaar na fa joxe ay dons yu bari mu jëm ci ay blouse jëm ci ay euh, matériaux bloc opératoire dem ci médicaments dem ci accessoires d'ailleurs c'est une tradition au niveau de la mairie ville ndaxte daw rek célébré woon nañ ko mu neexoon lool amoon envergure bu am solo donc kon suñ ko defee ren dañuy dellu siwaat rek buum ca mboy mboy ka ndax euh, ñun lii c'est une tradition au niveau de la mairie bi lan ak lan ngeen indi est ñu lu ñu indi moom bari na mhm. lu ñu indi moom bari na lool mhm. lépp loo xam ne bébé dina ko soxla ci premier mois mhm. ba presque ay cinq à six ans yàlla def na ni indaale nañ ko amul lu ñu bàyyi suñu paree sax mën nañu ubbi valise yi ngeen xool vraiment nous sommes venus en grande pompe merci beaucoup. Euh, plus connue sous le nom de Sabel mhm. conseillère au niveau de la mairie ville mhm. chargée de la commission santé et hygiène et salubrité. alors madame euh, aujourd'hui vous êtes venue au nom de la mairie de la mairie ville euh, pour je dirais accueillir un nouveau-né ou bien deux nouveaux-nés ici à l'hôpital régional de Thiès quelle sensation vous anime vous en tant que maman et toute la délégation qui vous accompagne. voilà permettez-moi d'abord de dire merci à Docteur Dr Babacar Vraiment, il est à l'origine, il est l'initiateur de cette euh, rencontre, il est l'initiateur aussi de cette activité. C'est quelqu'un qui vraiment s'investit beaucoup sur euh, les problèmes sanitaires au niveau de Thiès. Donc, euh, il y a lieu de lui dire merci. La sensation que nous avons aujourd'hui, c'est que nous sommes des mamans et que chacune de nous a eu à enfanter. Et conséquent, un enfant né dans une famille, il y a de l'émotion, il y a de la sensation. Donc euh, c'est un sentiment de plaisir, euh, animé d'émotion, mais vraiment que nous saluons et que nous remercions aussi au passage et que nous, nous, remercions au passage docteur pour vraiment d'avoir pensé au bébé en cette journée-là. Ok, vous avez dit tout à l'heure que c'était une tradition au niveau de la municipalité de fêter un peu le bébé de l'année. Au-delà de ça, au niveau de, la santé, est-ce qu'il y a d'autres activités que vous êtes en train de mener Nous sommes en train de mener d'autres activités. Il y a Badien qui est à mes côtés. On travaille sur beaucoup d'activités beaucoup au niveau sanitaire. La fois passée, nous sommes on travaille actuellement sur un grand projet qui s'appelle TCI un projet qui englobe presque tout ce qui entoure la santé, allant de la petite enfance jusqu'à euh, l'âge de la ménopause. Donc nous sommes en train de vraiment de faire des grands pas euh, pour vraiment venir à bout sur les problèmes sanitaires au niveau de Thiès. Merci beaucoup. Euh, bonne année 2024. alors nga nekk papa tey euh, association de femmes yeeg ñi nga xam ne ñuy représenté lu bari ci dëkk bi indi ñëw fekkee ci bébé de l'année bi yan jàngat nga ciy def ak yan euh, kaddu nga ciy yekki ci ci waxtu bi euh, di wax tànk yi leen yëkkati yàlla na déwén ñu jógaat aussi defaat lu mel noonu di leen ñaanal aussi ndaxte li aussi yombut suñu borom nga xamante ni mooy maye Euh, su la mayee nag euh, askan wi euh, ku nekk jóge fu nekk pour teewe bés bi loolu nun waaju dañ koy rafetlu yàlla na yàlla na dara tëwal mu gën a yokk doole gën leen a may am am ak kattan ba lii ñu def ren déwén aussi ñu def lu ko ëpp ci ki nga xamante ne aussi moo fi taxawaat ci même heure bii nii am leen gërëm leen sant bi mooy sa njëkk bi njëkk a non non euh, dama njëkk euh, taalu ay cheikh euh, teg ci ku jigéen yàlla suñu borom tey may ma ko góor. c'est waaw délégation mbégte laa ci am parce que non seulement ay collègues lañu ñoo nekkandoo fait ensemble ci maire de la ville mm-hmm. donc su ñëwaatee nii aussi ma gisaal leen sama côté. Euh, day wane rek la famille bi ñuy dund fële moom lañu ñu waat si euh, feddali kóllëre googu noonu euh, xanaa di leen ñaanal rek. Uh-huh. waaw yàlla na jàmm sax ci réew mi ci at bu bees bii surtout loolu daay laay amoon kàddu yi nga xam ne laay tàggoo réew mi soxla na jàmm yàlla na jàmm sax ci réew mi. jërëjëf. Uh-huh. leen di delloo nuyu. Uh-huh. di leen sant di leen gërëm Ah, di leen wax na ni leen man la ma Ndiaye sage femme d'état waaw mais man nag nekkuma fii biir salle d'accouchement man je suis à la salle de tri salle de réception ah, patiente bi man maa ko recevoir mais nag les sages femmes de garde sont là-bas c'est Madame Mam Diara et Madame Sadi. Voilà, ce sont les deux qui sont à la salle d'accouchement. Mais moi, je suis à la salle de tri. D'accord. Alors, en tant que responsable, beaucoup de hôpital, vous avez dit di kontaan rek ma ne ko di contente. rek di delluwaat di sant yàlla parce que daaw dañu amoon bébé de l'année mhm. waaw man mi de la ma fekkoon ndax 31 daaw man gardé ren aussi nag ñu ñëwaat am ñaari bébé da la ne waaw kon nag du ñu def rek lu dul di delloo daal di sant yàlla waaw di sant yàlla rek bu baax daal di leen remercier aussi itam yéen ñi nga xam ne fi indi cadeau yi mhm. cadeau yu bari yi ñu di remercier nag la ville de Thiès docteur docteur Babacar waaw ah, d'accord waaw wax dëgg yàlla ñu ngi koy remercier bu baax a baax baax parce que kontaan nañu trop nag vraiment kontaan nañu trop à part du am eh, suñu placard defal ñu médicament defal ñu ba nga malade bi bu mhm. comme par exemple nga ADC le temps que ñuy yónnee kit bi ak yooyu dañuy jël ci suñu placard ñu defal la ak accouchement ak yooyu yëpp waaw vraiment ñun defal nañu suñu placard suñu suñu suñu médicament d'urgence voilà defal nañ suñu médicament d'urgence loolu nag ñu ngi ciy remercier suñu directeur hôpital di remercier suñu saf di remercier suñu professeur Mariette ak suñu maîtresse sage-femme madame Ange d'accord alors fi may terminer def envers ah ñoo wax dëgg yàlla ñu ngi leen di remercier moom ñu ngi leen di cant daal fu cant yam waaw parce que lii ñu def nii lu rëy la parce que lii moom mobilisation dëgg la waaw parce que lu toll ni jour 31 décembre le premier mhm. ngeen dégg ko rek parce que diggante bi ngeen ko déggee ak diggante bi ngeen ko ñëwee gàtt na mais ko xool li ngeen indi xam ne wax dëgg yàlla indi ngeen fi nag lu am solo kon nag ñu ngi leen di remercier bu baax tam di leen ñaanal yàlla di leen wax aussi itam yàlla na ngeen ko yàgg mën ci darajey Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kii nag moo doon sage-femme de garde bi moom moo accouché moom moo accouché kii madame Sadji waaw ñoo ngi nuyu ñëpp di leen sant euh, di leen ziar man maa ngi madame Sène ñu wax Sabel Dia. STV, la première chaîne